صلوا عليه وسلموا وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Vous remercie et vous souhaite une euh, ci noonu la plateforme des droits des filles bu plan international tàmbalee ñetteelu assisam ci lëkkoo yu universel ca maison Rose bu Guédiawaay loolu nag aju si seize jours d' activisme yi nga xamante ni plateforme bi fas yéene see taxaw temm ngir xeex fitna yi nga xamante ni ñu ngi koy tekk ci xale yu jigéen ñi rawatina si jigéen ñi waaye fexe benn sàmmonteel ak ak ak yelleefu xale yu jigéen yu ndaw ñi Adama Ndeye Karine Meng mooy coordonnatrice bi. xam nga seize d' am solo boo xam ne ñun si liggéey bi ñuy liggéey ndax euh, comme ni nga ko xamee plan day liggéey pour droit des filles loo xam ne day tax euh, droit des fi gën a jëm kanam gën a ñoŋ di liggéey ci àq ak yelleefu xale yi tey nag ñu ñëwoon Maison Rose pour def fi activité activité bi ñuy def nag ci biir euh, Maison Rose dafa méngoo lool ak euh, thème mu cinq jours d'activisme élimination des violences faites aux femmes aux filles Maison Rose di cadre boo xam ne ay xale yu jigéen yoo xam ne ay victimes violence rek ñoo fi nekk. ci loolu plateforme bi fa seenee waxtaan waaye it sensibiliser ak ñëpp ñi nga xamante ni mbir mi laal na leen xale yu jigéen ñi jigéen ñi waaye it kilifa diine yeeg aada yi. xamal leen solo bi nga xam ne moo nekk ci violence bi.

indi ay sociologue indi ay psychologue indi ay juriste pour que ñetti fànn yëpp ñu mën cee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a dundi violence yooyu pour que ñu xam ne violence bi leen dal du fatalité war na ñoo mën a jóge ci violence bi reprendre seen vie normalement mais amaat résilience buy tax ñu mën a insérer wu ci tissu économique et social mën a am seen autonomisation mën a amaat beneen dund bu normal bu ñuy dund. ci loolu plan international nit ñi dañ fay waxtaan waaye it dañ fay sottantee xalaat ngir rek mën fee jëlee bépp fitna boo xamante ni ñu ngi koy teg ci jigéen ñi. Comme vous le savez, Plan International est une organisation. centré sur plan international ab kuréel bi nga xamante ne taxawu ak ak yelleefu xale yu jigéen ñi ak soxna yi ci seen bopp moo ko tax a jóg kuréel bu ni mel nag mënut a fexe ba noppi ci ay fitna yu ñu teg ci kaw jigéen ñi plan dafay lëkkaloo ak yenn ci ay kuréel la di ay institution yu fare ci nguur gi jëm ci fexe ba daal di teg ab politique mi tax ñu mën a daal di wàññi bu baax bii la ñàkk yemale moo waral sax may yëkkati bu woote di ko jëme nag ci képp ku bu manti doon ngir ñu àndandoo su ko defee nak ñu mën a xeex fitna bu ñuy tekk ci kaw jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi. pour que chacun se demande quel acte je pose aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de violence sur la fille sur la femme. viol inceste avortement bokk na ci fitna yi nga xamante ni sociologue bii di Lamine Ndiaye waxtaan na ci ndax gis na ni yooyu ñooy yi gën a fës ci Sénégal. yu war a dañ la xale yi ñuy violé ak di leen sàkku te xale yi xam leen gën a jege moo leen moo leen sàkku xam nga ni yooyu lu ñaaw la yu metti la yoo xamante ni léegi-léeg dana yóbbe sax xale bi muy muy dem di jéem a avorté wu du làqatu te yoon mayewul kenn kenn avorté bàyyi fi jigéen rek seetaan ko mel ni ki jigéen ji daal ab kii la am xar la wala am kii moo dugal ci kaaf rek di ko xontu gese mel ni amul ay bëgg-bëgg ak yooyu kooku bu ko saytaane jàppee mbaa bu dara dal ci koom ba ki da ko war a ko jéggal la gën a mérite di ko xas wala di ko saaga demee noo xam ne ku ko def sax daanaka daanaka moom moom saw askan yàqu saw askan yàqu na jigéen ji bañ nag askanam yàqu deram yàqu loolu moo leen di yóbbu léegi-léegi ñuy dem di avorté wu di def avortement clandestin di kii ba ba ba dara am tey. mu nekk nag mbir yoo xamante ni ñàkkul ay njeexital ci euh, ki nga xamante ni moom la dal bu nu sukkandikoo ci psychologue bii di Ndeye Bersicane Camara moom muy ñaawlu sax noppi gi nga xamante ni ñu ngi koy nopp ci yooyu le mbir. des fois li violence bu amee euh, day nekk si biir kër gi bu fit wax parce que yaayam moo koy teree wax du am fidoo parce que day xalaat bu waxee conséquences yi ciy am parce que mën na tas suy yaayam mën na tas këram mën na tax ñu ne seytaan la des fois aussi duñ ko gëm su ko deful day indi ay conséquences yu bari ci moom xale bi day màggaale lool te bu ko màggaalee mën na dem ba ëllëg mën na am problème bu nekkee ci néegu sëyam parce que ñun ñii des fois dañuy rencontrer ay femmes yi nga xam ne ñi ngi seen néegu sëy ñi ngi sëy euh, am problème seen biir ak seen borom kër ak yooyu te bu ñu ñëwee ak ñun di waxtaan bu ñu xoolee ci biir dañuy gis ni euh, problème bi fu mu sosoo mooy ca nekkee ndaw ndaw. donte ni sax gouvernement bu Sénégal tëral na ay xaatim ngir daal di teg ay daan képp koo xamante ni def nga yooyu leen ñaaw teef bu ñu sukkandikoo ci Lamine Ndiaye. te dafa am yoo xam ne bu amee yoon léegi-léegi dana ñi politique yi danañ jël ay décision danañu wax ni lii wax ak loi bi ba ñu teg tënk loi yi waaye nag da ngay dem ba gis ni loi yi daanaka boo dee seet da xalaat ni xanaa dafa amul njariñ mais loi kan moo koy amal yoon kan moo koy amal njariñ nit xam ni ñoo tax ñu def ko ñoo koy amal njariñ ñooñu nan lañ koy njariñ léegi-léeg bi yenn yi amee ñu koy wax diine sax dafa bëgg nag ki xam ni dafay def lu ñaaw ñu won ko ni dafay def lu ñaaw waaye juriste bi di Gayal Babacar Kane moom li mu gis mooy que ni am na loo xamante ni war nañ ko mën a yokk ci liggéey boobule ngir luwaay mën a dal ci képp koo xamante ni def nga lu ni mel. Au Sénégal en janvier. 2020 lañ adopté la loi criminalisant le viol et la pédophilie ci lañ ne ah euh, ñun ci loolu la ñu sukkandiku vulgariser ko ñëpp mun cee jot que ça soit les acteurs coutumiers les acteurs religieux les acteurs judiciaires ku ci nekk tey mun a am tey benn rôle boo xam te ne daa nga ko mën a jouer pour ñëpp mun a jot ci loi bi waaye itam euh, au delà de la loi ñu mun a teg ay mesures d'accompagnement efficaces ba ñëpp mun a jouer son rôle est-ce que tey la loi serait un frein vis-à-vis de ces prédateurs place des mesures d'accompagnement efficaces, qu'on la culture de la dénonciation que ñi di mën di pour en quelque ca ndaje ma nag acteur communautaire yi ñoom it wax nañ seen taxawaay bi nga xamante ni moom la nara a am ngir xeex wàllum fitna yi nga xamante ni ñi ngi koy tekk jigéen ñi waaye it daal di soñu xale jigéen ñi ngir ñuy seeti ñi nga xamante ni ñoo leen mën a dimbali ci mbir moom le bu dee soxla na ndimbal. à l'hôpital psychiatrique de plan international nag jaaree ko ci plateforme droit des filles taxaw ci campagne bi jëm ci 16 jours activisme yi ngir jëlee fii bépp fitna boo xamante ni ñi ngi koy teg ci xale jigéen ñu ndaw ñi ak ci jigéen ñi.